tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifa gi Abdoulaye Sow mi nga xam ne sunu xarit la di sunu mbokk itam donte bi xamante yàggul Cheikh Bachir Tall mi nga xam ne mooy nijaayam moom xamees na ko fii bu baax mbokk la xarit la xaritu xalifa bi la bi mu fi ñëwee ñaari at ci gannaaw ki nga xam ne moo yoroon kàddoom wax ne mbir mi kat du hasard ndax sëñ Muntaxa moom Cheikh Mahmoud Bachir tey mbokkam xaritam sëñ Bachiru moom sëñ Mahamad Muntaxa moo fi ñëw siyaare si kon mu mel ne loolu du hasard waaye ñàkkul lu su namu ci ak dëppale jàmm ji ngeen di wut itam xam ne da ngeen ñëw tey ngir dolli ay leeral waaye ak wut si jàmm loolu itam ki nga xam ne moom ngeen koy wut si ci moom sawar na ci bu baax ndax bi nga xamee ne barki démb sëñ Ablaye woo na ma wax ma loolu ne ma da ngeen ñëw te ñëw gi itam yoon li ci ëpp doole mooy ñaan si sàkku ci moom mu ñaan jàmm ci ñaar réew yi nga xam ne ay bokk lañu te yàlla def aw ay seen diggante mu ñaan ci ndax yàlla fay ko te ku ne xam na ne aw ay moom boo cee ñaan bul ñaan yàlla sori bul ñaan yàlla dara ñaar yàlla fay rek ndax tànk fayul rek fu ne mën na fa àgg tànk fayul rek fu ne mën na fa àgg kon nag ñaan googu ngeen di ñaan ki ngeen koy ñaan loo sawar na ci ndax wax na ma barki dem ne ma kat jàmm amul yemut dara kon moom buñ jëwut jàmm man danaa sawar ci ànd ak ci jàmm jooju danaa sawar ci ñaan ko yàlla kon nag bu fekkee gis ngeen ci benn buntu boobaak léegi xaat nun dañ koy sant yàlla bu baax te ñaan yàlla mu dolliku tey ñaan yàlla mu jëm kanam loolu ngeen xalaat ci université bi itam université bi sunu xalaat la képp koo xam ne xalaat nga ci jëm ci rek ñun bay boo ñu jàpp ñu jàpp ne ñun suñu partenaire nga ndax université bi day xalaat boo xam ne sëriñ bu mag bi moo ko fi bàyyi woon amoon ci yéene lool kon képp koo xam ne yaa ngi xalaat jëm ci loolu lu ci jàpp rek nun dañ koy def ak cawarte te dañ ci dañ ciy bége lool lii sëriñ boo wax ci wàllu jaxasoog ñaar réew yi itam lu nu yitteel la ndax kon ne xam na ne Sénégal réew mu ndaw la te réew yu mag yi sax dañoo bëgg di jaxasoo di jëflante ngir kenn ku ne jàppalante sa morom kon bu fekkente ne nun réew mu ndaw lañu am réew mu mag mu toll ne Russie ñëw bëgg a jëf jaxasoo ak nun bëgg noo jàppale bëgg ànd ak ñun loolu dañ ci gën a sawar daañ ci sawar daañ leen talal loxo itam incha allah ni nga xam ne tey ñaari ñi nga xam ne kii ngi dëkk Russie ki dëkk Ukraine ñu bokk benn fa tey benn jotaay noo ngi ñaan yàlla àdduna dox ba président Russie ak président Ukraine ñu bokk toog nii ñoom ñaar ñu toogee jàmm am fépp ci àdduna si jàmm am fépp ci réew mi lépp li nga xam ne Eh, ñu ngi ko ci yéene di ko ci yaakaar yàlla def ko ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm eh, da ngeen di door a yegg si waaye bu ñu noppee ci yëf yi bu ñu xewloo rek say mi ngi leen di xaar ndax waxoon naa ko ko ba mi ngi leen di seenu yàlla na ngeen dox mission bi ci jàmm eh, delluwaat ci jàmm waaye yàlla na mission bi réussir am ndam ni ngeen xam ne ni ngeen ni mu ni mu fi ngeen ko yaakaare ba sax fu ngeen ko yaakaar yaakaarewul waa nun day euh, sëñ Ablaye bu ñu sañoon du ñu dox lu dul jàmm du ñu dox lu dul aw bu ñu sañoon itam du ñu wax lu dul lu baax kon li ñuy wax duñ ko nëbbu duñ ko nëbbu kenn incha allah ba tax na euh, loolu nun amuñ ci benn jafe-jafe ndax nun noo ngi fii ci Touba te Touba ñu bëree bëri yaakaar nañ fi yeneen réew yu bëri ñu ngi fii ñëw te sëriñ bi amul benn jafe-jafe ci recevoir fi waa riche kon na nga xam ne ñun li ñuy def bu ñu sañoon àdduna sépp fekk nu ci te mooy ñaan jàmm ak ñaan lu jàmm ndax jàmm neex neex ak li muy baax baax dafa bokk ci li koy maye mooy nga wut ko itam kon comme yéen a wut jàmm di fekk nu ci ci ñaan rek ngeen koy def te ñun ñu ñu ñu war a ànd yéen ñaan gi amuñ jafe-jafe ci loolu waaye ñu ngi leen ci sant bu baax ñu leen ci gërëm. baax a baax